wallaay wal wa azim xam nga day mel ni waa waa ji ñu yóbbu woon hôpital rek loolu la may fàttali. Eh, waa ji dañ ko yóbbu hôpital mu feebar tëdd. ñu indil ko rejet ñu ni ko rese ngi nii de mu ni force leen ma ko force leen ma ko fekk am na benn jarbaatam bu nekkoon ci wetam ñu ni ko waa ma ni da ngaa lekk fur mu poma ngi ni mu ni force leen ma ko ay forcé la ñu forcé ko pom yi waa léegi pom ak pom ni mu woowee yow tey dem ñu suñoo ko forcé nga koy lekk yaa ngi xam nga yow wér nga ñoo ñëw ne ko banaanaa ngi nii mu ni forcé leen ko ay leen ko ñu ne ko waa yow waa caagiri ji ne ma forcé leen ma ko forcé leen ko bañ war koo pikiir pikiir yu gudd yi ngand yooyu ñu ne waa léegi nag comme que noonu la demee dese ay pikiir xaaral pikiir ñu kii pikiir yi nag mu mu gees yem ci booy bi naan forcé leen ko ko forcé leen ko ko booy bi booy bi la wax forcé leen jarbaat bi gars yi ñoom forcé leen ko dafa bëri waxta daa rëy làmmiñ forcé leen ko ko waaw moom yow yow yaa feebar lekk say fur wi sa piqûre ñëw nga bëgg a jël sa piqûre jox ko xale bi ba pare naan forcé leen ko ko lool loolu du dem